bonjour. c'est qui ça. déglu laa jàmm la. Ah, ah tey nag dafa mel ni waalo bañ na nag. chaque jour que jëfee waalo day bañ. i Lac 2 nag léegi dafa mel ni dafa am fit. oh oh borom fit boo leen xoolee da leen di xàmmee. amatuma équilibre. mais nag Lac 2 ñu bari nee nañ kontaan ci combat bi. amul kenn koo xam ne tey kontaan na si làmb yi moom. ndaxte ñu bari dañoo yaakaar ne combat bi du yàgg ñii foog ne Lac de Guiers ak Eumeu Sène moom nar nañoo bëre ba naaw coach Lac de Guiers bi moom dikk tegal ma classement Diego Simon si de Guiers dikk di défendre di défense Atlético Madrid bi may wax Eumeu Sène moom dikk woote te caayam ci di sa TFM mais c'est honte ndax tamit dagg sa ticket dem ba si stade bi toog di seetaan lamb ñu lay tegal maxi nil dafa neexul dara dëgg du romb nopp ñii nag ñi ngi naan Lac de moom moo def ci mëninam ñii naan Eumeu Sène moo dikk téye boppam. Eumeu Sène mooy suñu bër mais xam nañ tey ñun bés bi nekku suñu bés. ah lu tax nekkul seen bés tamit. parce que la dëgg tey moom woon làmb ji moom mooy bëre. waaw. mais nit ki mënoo moom ñëw bëgg a bëre. mais bul fàttali day ñëw téye boppam. lak tamit nee na xale la moo tax mu daan dikk ci teg classement la 8 1 1 maanaam da daan défendre rek. Eh, moom moo ne màgg na xale la. waaw. nañoo imposer li mu liggéey pourtant nak de xawoon naa attaqué dafa melni de. la de guerre attaqué attaqué bi yëpp attaqué wul day nax nit ñi. manam da nga bëgg wax ne Lac de guerre Guiers lu li ñu def. bo gëmon lamb ji jeex na bu yàgg dañuy waxante deug lii da lañ naan ñoom sant mun a wele. waa Eumeu Sène yow tamit dem li nga bëré lan la. man lima japp sax moy que day ñew xam nga bëré ci quoi fay attaquer ma bëré ñu bëré ah ok yow da nga bëggon Lac de dik tanté dara manam mu attaquer la. wo tanté dara man sama bëré ci lay ibéku manam manamay mëna mën ci li ngay ñu wure. ay waa ji la dëgër del xool li neex say supporter. man lu ma neex laay xool. kon boog nga la russi sa supporter yi nga bàyyi ni ngay bëree tamit. ni may bëree man la concerné bu fekkee mënuma ci daan mu teg ngembam dem toog seen kër. kii dof pilis la. ah dee waay dee. <laughs> mais yow tamit Eumeu Sène comme que la dëgër ñu bari ci téye boppam lañ ko xamee. am na sax ñu dem ba naan la dëgër bu nekkoon jigéen bàjjanam dina kontaan ndax ku mën a téye boppam lay doon. xam nga kooku du attaqué. yow kay yaa làmb li ci kenn nax même xale bu ndaw bi sax bu téyee boppam ci làmb ñëw téye boppam xam fu muy taxaw. waaw. làmb ji dina diire. saako tuuma magum jëmm. xooluma la yow lu la neex yow li la neex yow Eumeu Sène xooluma ko. mais la dëgg tamit est-ce que laajut ñu mise en ko pour mu bëree ñu ñeneen ñi di bëree. ay ñee ni ñu bëree ñee ni ñu bëree loolu sama yoon nekku si. sa yoon war na cee nekk nag pour nga sigil sa doomu ndey Balla xool si ni muy bëree tuuti sax. ak ni ñuy bëree man la dëgg ak ni may bëree. fier ki nag. recul moo ci mën mooy fooram def na ko am na ci ay combat yu bari te am na ci ay victoire duñ ko ko bañal loolu mooy fooram. d'accord nañ tas loolu mooy point fooram kenn weddiwu ko. dëgg du romb nopp. mais imagine toi ñu ne la Lac de Guiers 2 moom mooy bëre lamb ji amul mi-temps amul nii faw kenn daal. mais combat boobu ñaata la ah man de moom a jaaxal. <laughs> te nag ki Lac de Guiers rek laa gisee signature contrat mën na wax ba wër la. lamb ji dikk mu mel ne xarum yar. mbëru signature contrat la. mais c'est man moom damay laaj rek. looy laaj. la dëkkat bi nga ko laajee ni nga amee ndam li ndam na lan la war a sax. waa ndam moom noo ko amee ndam ndam la rek. yaa seexul Ibrahima Baba Lamine Diassi. fàtte naa sax moom genre victoire yi rek la xam. yow looy wax ni. ndaxte Lac de moom mooy mën moo xam ne. moom rek moo fi bëre 4 combats 90 minutes. loolu day yëngal hémorroïde. astafurlah. ana lii de nag mooy saafara si jur jàngoro dëgg dëgg dëgg di sensibiliser say supporters ba far jox leen jàngoro hémorroïde. <laughs> man nag franchement li muy gën a rey mooy xool leen bu baax Lac de Guiers muy léwétoo. waaw ah, xoolal xoolal xoolal ñu ngi xoolal xoolal. <laughs> non. Lac de Guiers muy léwétoo comme connexion buy kalde. mi ngi mel ni ngay seetaan nouvelle as connexion bi di kër rek. la dëgër ñëpp xam nañu moom novelas la quoi ku nekk télé a gën may wax la dëgër di yéeg ko wàcc nii rek mel ni ku yéeg ci oto ñëmbat waaf waaf waaf waaf nii rek. pour respecter les gens yi. Eumeu Sène moom dikk na yàgg mel ni guy gu taxaw rek. <laughs> mais nag Lac de Guiers combat yi yëpp benn combat rek laa ci gis mu attaqué muy contre moo waaju baax foofu de Lac de moo attaqué waaju baax moo ko song moo ko yëkkati. ànd ak moom nag couvertage ba pare di def ak moom déplacement latéral ba pare waa ji baax moom di yuuxu. garaawul de garaawul mbër mbër noo ko def nii mbër wóol ma xaas wóol ma xaas wóol xaas wóoleen xaas. mu woo kan kan lay félicitation ki song gi nga song waaju baax. bu ko defee nak gars bu loolu wesso ñu daal di bonus té nak vidéo bi amna bonus bonus bi moy ñi wax avant lamb ji di commencer manam ñi wax avant lamb ji quoi ñu seetaan leen. Karang Taba néna na Anta day daan jën kayre. Modou Anta day daan jën kayre. jël bu sét wéti loolu dara du ko dindi. am sen day daan Lac de guerre jël bu sét wéti té loolu dara du ko dindi. le 4 avril bob moy sama dernière laaj Eumeu sen dina dem Lac de Guiers sen dina dem duma Lac de combat bi du yag 30 secondes lay don ni la ñu yàlla bindee dañuy wër di fenn rek fenn la ñu yalla bindé ñuy fenn japp nañu nit day sportif ñii mom man ben affaire rek laay lati est-ce que ñom am nañ ay mbokk wala ñoom dañu gëna xam yalla limi def moom ak yàlla ak ñoo xam ne saa yu wéxé rek yalla fële seen gëmmi daal di dëppati seen wax ñoom nak ñu ne mukk duñ bay mais c'est honte way nak dafa melni ñi ñoo ñi nga xam ne fen ba far gëm ba far gëm seen fen nit ñi ñoo gëna bon sax Omar bun khays man de li la wax may ni loolu ngeen wax lii nañu mëna wax do loolu jaay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu ko defé suñu mam mën naa def ñaan amiin wal qamari